Jangan memburu saja. Mamem. Ya, jeex buru la doon jënd pour dem défar ndéki ah wol nañu kay parce que yag nañu génné fi buru non non mom loxo bari du ko laal pourtant mom kese mo koy e laal mo tak ñu wolu ko ñu du ñëw fi du jënd toujours parce que suñu client ya la fi lañu faratu du jënd waaw dégg naa ko si benn rajo waaw. ñuy jëlee mburu yi si boutique bi mu nekk si bulan yi maanaam pour éviter feebar yi si boutique yi quoi loolu xam naa loolu laa si dégg loolu laa si loolu laa si jot a dégg daal. waaw bu dee man sama bopp de loo xamante ne mooy yokk jàmm si réew mi mooy indi jàmm si si ñëpp man ma pare pour bokk si loolu ndax gannaaw lépp jàmmaa si ëpp solo man mii lu tax may jaay mooy dama am jàmm suma ma feebaroon tey jii nii du ma waaw maa ngi ci gor gor luma mun ma ngi gor gor ñu ngi raxal suñu loxo ak or sawel ak sabu lool la lool lañ yemagum dal man damay faral di ñew ci boulangerie la plupart quoi ah. Ah. mais parfois aussi boulangerie bu ñu amuñu ki euh, mburu parfois ñu dem ci boutique yi quoi mais lolu avant ki bi quoi coronavirus bi bi ci dugg mais depuis coronavirus bi bi muy dugg chaque instant c'est bureau qui quoi c'est boulangerie ou brioche dorée quoi. boulangerie moy gën am sécurité instant bi quoi parce que d'après les explications nañu wax dal coronavirus mënul dund ci nga xamanté ci tangay quoi. lolu la fa demee mais boulangerie mom yaakaar naa xam ni mom fi affaire bi day gën directement mais ci boutique yi mburu bi mën na fanaan. te en même temps bu ñu indee ci saag la ñuy def ci affaire bi xam nga te aussi waaw ni bi bu ñëwee dañ kii quoi man loolu laa gis comme sama kii am naa fii moo gën a am sécurité quoi.